mbokku téléspectateur yu global télévision jërë ngeen jëf ci teewlu bi bismillah ci xibaaru marax bi léegi-léegi ñu wax leen li gën a fës ci bopp xibaar yi li ci gën a fës nag euh, bokk na ca àtte bu ñu àtte kii di Moustapha jaxate ki fi nekkoon nag kenn ci ndaw yi doon euh, joyanti laskan bi ca pencum ndaw réew ma li liñ koy toppee nag mooy euh, daal di wax ay kàddu yu ñaaw yoo xamante ne nag dëppoowul suñu aada ak suñuy cosaan ak li nga xamante ne moom mooy yoonu dëkk bi Euh, teg ci nañ nag daal di koy alamaan lu tolloog ñetti téeméer ci ay junni euh, keneen koo xamante ne nag euh, ñu ngi dafa wàcc liggéey di Yamar maane nekkoon fi artiste comédien tey jii nag la wàcc liggéey leneen lu des ci xibaar yi ba tey tey jii moo nekkoon nag ñetteelu édition bis bi nga xamante ne ci lañuy màggal daara yi njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye it doon ko daal di jiite ngir rek ñu daal di gën a Euh, dooleel daara yi daal di leen di dugal ci système éducatif euh, sénégalais bi euh, ci loolu nag ñu daal di tamit ñoŋal li nga xamante ne moom mooy nekkinu daara yi mbokk yi lii lépp ab tënk la bu ngeen taaxee loo ñu faram fàcce ko. booloo ci ñi nga xamante mbokk yi 19 tegal na ay euh, simili ay kàddu yoo xamante ne nag euh, tegginewul ak euh, wax yoo xamante ne wax ju ñu jàppee lu ñagas la la Moustapha Diakhaté daal di wax loolee nag tribunal bu Ndakaaru ñoo ko daal di wax ginnaaw ñaari weeru kaso yoo xamante ne nag dañ ko naa di tëj da koy tëdd sax kooku di Moustapha Diakhaté li tax mu koy tëdd nag liñ koy toppee mooy dafa daal yëkkati ay kàddu yu ñaaw ci ay eh, aawale ko ci xarala yu bees yi teg ci wax yoo xamante ne nag dëkkoowul ak eh, suñu aada suñ cosaan ak yoon bi nga xamante ne moom lañ tëral fii ci eh, dëkk bi loole nag ci ab procès boo xamante ne daanaka ay waxtu yu bëree bëree bëri ci lañ ko daal di àtte ca tribunal flagrant flagrant délit bu ndakaaru procureur bi nag moom li mu waxoon rek mooy ñu daal di koy tëj benn atu kaso juróom benn ya Euh, da koy tëdd euh, teg ci nag daal di ci taftal nag lu tolloo ñetti téeméer ci ay junni waaye nag ci kanamu juge bi ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Diakhaté daal dinay xam ne moom musta saaga wala mu wax wax bu ñaaw yëkkati ko daal di koy tekk ci ndoddu euh, njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax moomee ab citoyen la bu xamante ne nag citoyen bu exemplaire la nga xamante ne moom moo nekkoon député nag daal dinay dëggal ay kàddoom daal di xam ne li nga xamante ne moom mooy bulletin Ousmane ko ku ko daal di def ci euh, mbañ gàcce ga rek euh, nekk nga nit koo xamante ne nit ku alku nga lii lépp nag mi ngi tukkee ci suñu euh, naataangoo yi nga xamante ne ñoo ngoy nekk ca soleil di leen jaajëfal bu baax ñu war a wéyandi li nga xamante ne moom mooy xibaar yi ni ma leen ko waxee woon it ci li gën a fës ci bopp xibaar yi jiitu réew mii di Bassirou Diomaye jaxaar fay nag intégration bu bees tàq la bëggal daara yi ndax tey ji eh, dafa daal di ñëw nag ngir rek jiite li nga xamante ne moom mooy bis bu ñu jagleel eh, daara yi eh, mu bëgg nag daal di ñoŋal li nga xamante ne moom mooy naam seen nekkin waaye nag njiitu réew mi di Bassirou Diomaye jaxaar fay li mu bëgg mooy ñu dugal daara yi ci système éducatif bi terewul nag daara yi dañoo am seen te ñu daal di koy garder Euh, tek ci nak li nga xamantene mom moy mooy njëriñ bi ñu mëna a jural xalé yi euh, ñu daal di koy euh, continuer li lepp di ay cadeau yo xam ne rew mi yëkëti nako ñu tewlu ki nga xamantene mom moy Mansour Diassé. en 1960 le 28 novembre euh, moy bisub indépendance bu wa Mauritanie moom seen bopp. en 1990 le 28 novembre amna musiba. bu fa amoon ba bés bi léegi bisu dëj lay doon parce que euh, nguur yi nguur nguuru Mauritanie moo moo tabb benn communauté bu ñu demee ba toogaat ñu waxtaanaat li ñu bëgg daara doon naka lay méngoog jamono pour ñi nga xamante ne ñooy génne ci daara yi mën na intégré wu ci nu ma gën a yombee ci société sénégalaise loolu moo tax may woote ci bés ni ki ci njiital ministre de l'éducation nationale booloo ci ñi nga xamante ne noo nekk ci daara yi pour ñu am ay waxtaan yoo xamante ne ay assises nationales des daara lay nekk waxtaan yooyu day tax ñu xoolaat biñ ci toogee muy ñii nekk ci daara yi ñii nekk ci gouvernement bi ak ñëpp ñoo xamante ne ñu jàppale ci nu ñuy waxtaanee te ci lu war a nekk réforme yu ñu war a andi pour daara gën a taxawee lii di place am ba fexe ba kii jaar ci daara ak kii jaar ci beneen école donte ñoom ñëpp ay doomu sénégalais lañ état du Sénégal taxawoo leen yemale leen képp waaye nañu fexe tamit ba ñii nga xamante ne dañuy génn ci daara yi di dem ci université islamique yi que mu nekk fii ci Sénégal wala mu nekk ci bitim réew Man bolo, très liggéey ak nga système éducatif traditionnel bi bi ma bëgg wax école moderne euh, bi les fonctionnaires notamment et les autres acteurs de la République tey ñu des ci njàng mekk njàngale mi ci université Assane Seck bu Ziguinchor ci ab communiqué nag le ba daal di sukkandiku euh, di président conseil académique bu université Assane Seck bu Ziguinchor daal di xam ne nag ñoom dajale nañ naam alxamis bi ñu génn ngir rek daal di waxtaane euh, situation ba nga xamante ne ma ngay am foofu lay ca université Assane bu Ziguinchor ci nag euh, bi ñu jógee ci boobu leen daje lu ñu gis nag mooy euh, daal di tëjandi li nga xamante ne nag moom mooy boobu daara bu kawe ba jamono daal di neex ndax gis nañ ne amicale ya nekkoon ci étudiant ya euh, nekk defatuñu li nga xamante ne moom mooy seeni activité euh, teg ci nag beesaluñ sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen doon jiite bokk na ci coordination asso des étudiants loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ne dañ ko daal di ci suuf Euh, ba euh, li nga xamante ne moom mooy jamono neex li lekk nag di ay euh, proposition yoo xamante ne moom moo tukkee ci bilee ndaje ndax ki nga xamante ne moom mooy bilee conseil jàpp na ci ab communiqué na ne tëjagum li nga xamante ne moom mooy euh, bile daara moom mooy li gën ba situation yëpp daal di delluwaat ca na nga xamante ne moom moo ko gënoon waaye nag euh, tëjandi bile université euh, université bu Kolda maanaam centre universitaire bu Kolda URF 2S bokkul. ci tëj bi nga xamante ne moom lañ tëj ndax ci biir décision sax directeur bi nga xamante ne moom mooy directeur euh, régional œuvre universitaire bu euh, Ziguinchor euh, moom nag li mu gis mooy campus social bi daf ko daal di tëj ci date bi nga xamante ne moom la choisir ne ci la bëgg a tëj université ba étudiants yi nga xamante ne ñoom ñoo fa dëkk nag lu tolloog ñaari fan lañ leen may ngir ñu daal di delloo caabi seen néeg daal di delloo matériel ba nga xamante ne moom lañu leen abal te dellu ci seeni mbokk lii nag di ab ndogal boo xamante ne nag def jubluwu ci lu dul sàmm kaaraangeeg université Assane Seck bu Ziguinchor comme ni ko conseil académique bi daal di euh, digle lii nag euh, ki nga xam ne mooy centre régional des œuvres universitaires direction ba foofu euh, foofule ca Ziguinchor kon nag euh, mbokk yi ñu xamee ko noonu euh, université Assane Seck bu Ziguinchor kon daal dinañ koy tëjandi ginnaaw nag tëjandi boobu ñu ko tëjandi nag euh, ña nga xamante ne ñoom ñooy ndongo ya daal di koy métitlu ndax jàpp na ni recteur bi la mu def nag teguwul benn yoon ci li nga xamante ne moom mooy yoon ñuy ñaan gouvernement bu Sénégal mu daal di ci jóg daal di ci indi saafara ci ni mu gën a gaawee Mouhamadane Fall. Euh, nekk ab foofu foofule ca daara ju kawee bu Ziguinchor Assane Seck ñu daal di koy teewlu seqoon na waxtaan ci téléphone ak Jibril Niane. waa jàngat bi moo ci am mooy liñ def nii yaakaar naa ni euh, dañ koo def nii rek mooy defuñ ko ci si euh, cas professionnel wala si leneen ak leneen teguñ ko ci xam-xam quoi parce que université képp képp ko xam ko képp ko xam na muy doxe xam ni tamit day ànd ak ay problème te ministre bi ci ginnaaw ñaari weer si ginnaaw ñëw na fi jàkkaarloog étudiants yi mu ne leen si ñaari weer diirub ñaar weer dina eggale sànq yi pour ngeen mën a seen jàng mën a continuer te fii booy xool am na ay sànq yoo xam ne depuis mille quinze ba léegi nii ñu ko fi construire te ba léegi kenn tijjeegu ko te étudiants yi am problème mu saar pour jàng restaurant yi doyut ñaar restaurant yi ak ñoo fi nekk li ñuy togg baaxul. fan yi si ginnaaw booy jóg nañ di manifester wu presse bi yëpp jóg nañ tamit euh, commencé teg affaire bi si télé yi arrangé wu leen ministre bi arrangé wu ko mu jël décision ni day permettre euh, université bi mais loolu nekkul bonne décision quoi li ma gënoon yaakaar ne moo gënoon a nekk bonne décision moo étudiants yi moo taal ñoom mhm. ñu xool solution non recteur bi moom communiqué bi lim ci bind bindu ci dara la nga si nii Euh, si la sukkandiku benn euh, euh, motif boo xam ne ci la basé wu ni day tëj université bi moom instant bi dernier manifestation moom moo dugal étudiants yi ci biir ci biir campus bi waaye police dugg nañ ko ci biir campus jàpp nañ fa ay boo yóbbu nañ leen waaye dafa jékki-jékki génne communiqué ndax affaire bi jàll na CA te gis nañu bu jàllee CA après ci ministre la jëm directement ministre moo koy signé bu ko ministre bi signé mu doog jàll kon ça veut dire loxo ministre bi mu ngi ci biir waaye kon ñoom dañ koo tëj nii lan pour lan pour tëj gi munu étudiants yi pour noppiloo leen mais loolu du solution parce que tey jii bu fekkee dañoo jël décision ferme euh, euh, euh, université bi ñun on a d'autres voies hmm. parce que on est pour faire pour ja jaaraat si yeneen pour mën a xeex seen combat quoi mais pour le nii moom dañuy delluwaat ginnaaw ñibbi seen kër yi toog xalaataat waaw ci situation bi mais tant nag amuñ solution bu leer dañ fi ñëwaat di jàng waaw gouvernement bi li ñuy xaar moom mooy mu woo étudiants yi léegi nii nii nii jël ay mesures strictes ci situation bi parce que situation bu catastrophe la bu dangereux si étudiants yi ndax tey jii mën na dem ba jàll ci yeneen universités yi te bu jàllee ci yeneen universités yi crise kii lay jot euh, crise de d' éducation lay lay indi quoi ndax képp ko xam ne ñaa enseignement supérieur euh, moo yor réew mm-hmm. mais tey lii bu fekkee jël ci ay motukaay yu ma sëkk yeneen université gis nga démb seen communiqué ñoom ñëpp génne nañ communiqué pour soutenir l'université Assane Seck de Ziguinchor donc li ñuy ñaan état mooy mu dikk waxtaan ak étudiant Assane Seck mu xool nu mën a tijjiwaat ak université bi étudiants yi delluwaat jàngi jërë ngeen ñu desandi ci xibaaru marax bi bureau su régional euh, Afrique sow jant euh, naka commission économique Nations Unies Euh, ñoo lëkkaloo ak gouvernement bu Sénégal dara waralu ko nag daal di koy jaarale ci direction générale planification ak politique économique fii ci Sénégal ñu daal di amal ab lël nag ngir daal di tàggat ñi nga xamante ne ñoo ko fekkee ñeel. wàllum intégration euh, budgéti budgétisation sensible aux dividendes démographiques loolu lépp ci daal di euh, sàmm rek li nga xamante ne moom mooy gafand gafkak askan bi suñu sukkandikoo nag ci ay kàddu Assane Ndiaye mii di directeur développement capital humain ca euh, ministère ba nga xamante ne moom moo ñeel wàllum économie plan ak coopération Sénégal nag daal dinay jege juróom-ñetti poñ diggante 2011 jàpp 2019 mu ngi doon àddu ci micro am Amsatou Gannou. ce qu'on a constaté avec la budgétisation sensible aux dividendes. Euh, nemmeeku li nga xamanteni ni euh, budgétisation euh, ci li nga xamanteni mo jëm ci dividende démographique bi ci li nga xamanteni modi ministère yi lu ci ministère de la santé budget bi daanaka biñ fa def dafa mel rek lu dal ci jaxasoo waye ñun lañuy def ni di budget yi mu dal di don ben ngir fex rek ba Sénégal mëna xam lan lay dal di def ci fi nga xamanteni ni ci santé bi lañ bëgg dal modi ni fexé rek ba nit ni ñu mën kaa dugal fa mu war a àgg ci ñaari at yi maanaam daal ci atum 2011 ak atum 2019 daal nañ ci liggéey ci ñaari at yi maanaam atum 2011 ak atum 2019 li ñeel atum 2011 nag ci xayma mi ngi toll ci ñeent fukk ak lu teg ci atum 2019 ñi ngi daal di euh, gis ci ñeen fukk ak juróom-ñeent Sénégal nak ba léegi daanaka ci li nga xamante ni moo di dividende euh, démographique xëñ na nag ñu daal di ko mën a séentu ci at mi ñu dëkkmal waaye lu ci mënti xew nañ def suñu képp lay kàttan ba àgg fa. Euh, le Sénégal sera au-delà de cinquante pour cent. xibaaru wérgu yaram euh, jëwriñ ji nga xamante ne moom lañ dénk nag wàllum wérgu yaram ak jàppale di Ibrahima si docteur Ibrahima si euh, tey jii nag moo doon jiite ñeenteelu édition bi ñu jagleel euh, bis yi nga xamante ne moom la ñu war a xeex li nga xamante ne moom mooy sida naam waaye nag daal di yokk saytu bi ngir mën a xeex doomu jàngooro jooju foofule ca centre international conférence Abdou Diouf bu ñaajo ren nag thème bi leen dajale mooy daal di euh, intégration innovation ak impact lii nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci wàllum euh, wérgu yaram ak seeni euh, partenaire lu ñu bëgg rek mooy daal di fi jëlee doomu jàngoro ji nga xamante ne moom mooy doomu jàngoro yi sida file ak 2030 jëwriñ ji nag jàpp na li nga xamante ne moom mooy dàq fi wala jële fi bile doomu jàngoro yamul ci Euh, daa di nag euh, wàññi doole euh, doomu jàngoro ji waaye tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom la doomu jàngoro ji war a dal ñu daal di fàggu fagaru ba lii lee du leen dal waaye ñeneen ñi tamit daal di taxaw temm def seeni dépistage maanaam saytu ndax am nañ doomu jàngoro ji su ko defee ñu mënoon nag teel cee jóg balaa doomu jàngoro jee law ñii nag kii di jëwriñ ji nga xamante ne moom lañ dénk wàllum wér yaram fii ci Sénégal doon àddu ci micro am satu gànnoo cette démarche. yoon wi ñu jëm dafay méngoo ak ñetteelu axe

fexe rek mën a xeex ci anam wu ne li nga xamante ni moo jëm ci yenn ci ay jàngoro lu ci mel sida lu ci mel tuberculose hépatite bi nga xamante ni waxtu wi ni daal na lëmbee bu baax a baax li ci réew mi ak li ñu dippee a am foofu a baax kenn ku ne maanaam kenn ku ne mën ci dugal loxoom fu nekk nag fi nii ci wàllum santé ak li nga xamante ni moo jëm ci mën a harmoniser li nga li rek daal di mën a assurer lii di paj mi ñëpp mën cee jot maanaam daal ku mën a feebar faju rawatina ñi nga xamante ni dañuy doxaloo dañuy doxaaleek jàngoro yi ma lim waaye tamit fexe ba daal di wàññi ni ñuy jàppee ñenn ñi nga xamante ni am nañ jàngoro yi di leen daal di doya dal ak di leen daal di xeeb ñu dippee ko stigmatisation fu mu nekk nii nag li ñu bëgg mooy daal di mën a dakkal wala sax jeexal lii di sida fii ak atum 2030 waaye loolu fu mu mën a am foofu ñun ñëpp ñu dal di boole suñu doole mu bañ a am xaj jekk seet ñi nga xamante ne yàlla def na ñoom am ñu am jàngoro bi ñu boole leen suñ biir ànd ñoom naka noonu sax nag acteur dañ leen ci woo moo xamuy muy gouvernement bi moo xamuy muy ONG wala partenaire technique yi ba ci financier yi chercheurs yi ak professionnels yi yi ci wàllum santé. jërëjëf tey jii ci alxamis gi nag di bis bi nga xamante ne moom mooy bisu indépendance moritani Mauritanie daal di yemook nag anniversaire bi nga xamante ne ci la ñuy nag fàttaliku euh, dee bi nga xamante ne nag moom la euh, ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay. Euh, takku der yu am der bu ñuul daal di dee fa nga xamante ne nag moom mooy ca moritani tombe ak ka yoroon nguur gi di Ould Taya Euh, biir boobu nag euh, mu toll ak fanweer ak juróomeelu édition boo xamante ne nag dañ koy amal saa su ne ngir rek daal di fàttaliku euh, deret ju bëri jooju daal di woon tuuru foofu li nga xamante ne nag moom mooy ca Mauritanie ci loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci Maurit foofu ci lay ca Mauritanie di coordination organisation réfugiés ya nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu ca diwaan bu Mauritanie te féete fii ci Sénégal nag amaloon nañ jàkkaarloog taskatu xibaar yi pour daal di métitlu nag li nga xamante ne moom moo fa amoon foofu ca réew ma waaye nag li ñu bëgg leneen mooy ñu daal di yoon daal di ci euh, jàpp ngir rek ñu daal di wax ñan nga xam ñoo defoon ñaawteef bile lii leen nag euh, mais Ndéla Ndiaye moo ko taataan àndoon ceeg Boubacar Diagne. en 1960 le novembre euh, mooy bisub indépendance bu wa Mauritanie à 1990 le 28 novembre amna bu fa amone ba bi lay parce que euh yi Mauritanie le 28 novembre. mo mo tabb ben communauté. surtout communauté mais de femmes encore ay wolof. ay ay bambara. mais surtout peul, ñu buy xeex seen seen droit ak droit nit ku ñuul ci Mauritanie parce que réewu Mauritanie dafa nekkoon ci benn dérive benn dëng-dëng bu dem ci racisme d'État ba boroom xam-xam yi taxaw contre loolu wax contre loolu binde contre loolu be seen seen bind bi seen wax yi dépassé Mauritanie mu dem ba Loya loolu moo tax nguur gi buggoon na mu régle problème mu àndandoo diggante xeetu Mauritanie yi da ko bëggoon régler ak ray nit ak génocide moo tax it y a des centaines de cadres civils et militaires bu ñu ray bis boobu ñu leen doon ray jërë ngeen jëf euh, mbokku téléspectateurs yu global télévision ba tey ñu desandi ci xibaaru euh, marax bi euh, ki nga xamante ne nag moom la ñu ñàkk tey di nag koo xamante ne ràññe woon nañ ko ci wàllum théâtre di ab artiste comédien Ah, di Yamar Mané tey jii nag dafa daal di wuy ji boromam ci feebar boo xamante ne nag tëraay bi yàggoon na loolu nekkoon na artiste nekk it directrice directeur artistique fële nga xamante ne moom mooy ca groupe théâtral ah, Sigil Yamar ñu gis ne nag ay génération yu bari daal di nañuy seetaan li nga xamante ne moom mooy ay théâtre nekkoon na it euh, conseil municipal nekk euh, président commission culturelle jàmm mairie Diamaguène Sicap mbaaw waaye nag li nga xamante ne moom mooy euh, demam nekk na loo xamante ne lu ñuy métitlu fii ci wàllum caada ak wàllum cosaan ñi nga xamante ne it ñoo doon seetaan ay dramatique am bilee nag dem nekk loo xamante ne dinañu wéetal loolu ci loolu nag groupe bu GTIM ñu ngi euh, jaale képp kuy mbokkam ak xaritam waaye it di jaale ñëpp ñoo xamante ne nag ñoom ñooy monde bu culture kon nag ñu jàdd ci xibaaru bitim réew ca Libéria nag sénateur bi nga xamante ne moom mooy Prince Johnson eh, nekk nag figure controversée politique nationale daal dina génn àdduna am juróom-ñaar fukk ak juróom eh, ci ay at loolu nag média lu koy ñoo ko daal di xamal li nga xamante ne nag moom moo ko yóbbu ba tey kenn xamu ko nekkoon na it chef rebelle nekk sénateur atum 2006 ak léegi. moom nag moom moo doon représenté comté bu Nimba euh, base électorale am nag mercredi bi euh, lañ lañ fa dellu woon euh, dafa waroon na dellu sax mercredi bi bala moo génn àdduna Johnson nag moom joué woon na ab rôle bu am importance ginnaaw nag influence bi nga xamante ne moom moo amoon ca Nimba chef d'état bi nag daal di fay am lu tolloo ko juróom-ñaar fukk ak ñeent Euh, téeméer boo jël juróom fukk ak ñeenti voix yëpp moom moo ko yóbbu woon kon nag euh, wuuteem moom euh, Johnson nag nekk na loo xamante ne day daal di dàq ndono boo xamante ne nag guerre civile bi yëpp ñoo ko daal di am ak influence bi foofu ca réew bu Libéria. ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram ASEC Mimosa moom moo daal di jàkkaarloo mercredi. ak ki nga xamante ne moom mooy jaraaf ñaari bal ci dara ci loolu nag nekkoon bis bi nga xamante ne moom mooy journée phase groupe euh, CAF euh, suñu sukkandikoo nag ci kàddu Cheikh Tidiane Diagne bile euh, défaite nag nekkul surprise ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy Médinois yi dañoo nag daal di nekk sax victime. bile expérience ci bile compétition moom nag Cheikh Tidiane Diagne sekkoon na waxtaan ci téléphone ak Mame Awa Sall match bi wala sax décrocher le point de nul mais ce qui n'est pas arrivé donc euh, le chip dañ ko daal di respecté parce que dette bi nag moo di jaraaf dafa équipe nga si championnat Sénégal daf ñu tàmmal ay match yu baax jaraaf nag lu ñu seetlu moo di dafa équipe nga xamante ni démb ba mu ñëwee li ñu doon set ci moom wala di ko xaar ci moom ci xar kanam ko parce que dañ ñëw à la limite subir le jeu mel ni ku xaw a ragal et match yu mel noonu boo koy def moom en Afrique moom tu perds aset dugal ñëwaat encore dugal ak un deuxième but ce qui fait but du bret bi moom boo ko dugalee day xaw a pour que équipe bi euh, dellu donc mais comme on dit rien n'est encore perdu parce que des na yeneen compétition dont ASIC bokk na à mon avis ci ki nga xam ñom ñoo gëna a prenable si pour Jaraaf maintenant nak ni nga de ko jamm yow tam fexel bo nit bu ñëwee sa dëkk aussi nga am ci ndam donc non ngay def après derrière nga jéem négocier euh, un point de nul chez l'adversaire boo jëlé bolé ko lool yépp mën nga dem ba génn ci li nga xam bon deuxième tour faut que mu rehausser son niveau de jeu ni ñu fubalee nii mënuñ si génn benn yoon donc il va falloir ñu gën a am fulla gën a am fayda gën a am organisation gën a am engagement gën a am fit pour mën a génn ci li nga xamante ni moo di euh, phase de groupe mbokk téléspectateur yu global télévision xibaaru tàggat yaram yi moo buur euh, xibaaru marax bi ñu leen di jaajëfal bu baax ci teew teewlu bi euh, di leen jox rig rajo ngeen wéy suñu programme bu 20h jotee Ourey Fall Diouf dina fi teew ngir dégtal leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf ngoonu jàmm